زكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة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 ميسر سيد أبو بكر سي ابن الشيخ الحاج محمد المنصور ابن الشيخ سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنهما موم سيرن بابا كرسي منصور الخليفه ني زياره كو زياره استمداد ساك تي موم نيان تا ديكو نيانال يالا يالنا يالا غنا غودال فنام تا يوك ويرم بي نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تا اغلا اي يينم اك ميبتام تي دينا جي تاريخا بي تي نجابوت جي تي مي تي ادنا بي yal yàlla kàttanal ko ba lépp luy mébétam ak yéenam mu àggale ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu mboolem nag usratul malikiya njabootu maam Cheikh Alhaaj Malick yëpp Cheikh Alhaaj Malick si Maodo sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz suñu pap Alhaaj Mouhamadul Mansour Sy Dabakh ak seeni rak ak mbooleem njaboot gi yëpp góor ak jigéen ñoom ñëpp di suñuy sëriñ ñu nuyu leen ziyaara leen nuyu ziyaar mbooleem personnel bi nga xam ne ñoo ci kër gi di ci jiital suñu sëriñ sëriñ mam Omar Ndiaye fa tabarakallahu Euh, di ko ziyaara bu baax di ziyaara mbokk yëpp waaye tamit di ziyaara ni nga xam ne ñi nga xam ne la ñooy les fidèles de Asfiya yi di leen euh, jaajëfal di leen ziyaara bu baax a baax mbokk yi ñu dellu siwaat yéen ci émission suñu diine ni ñu ko baaxoo bi weeru gàmmu teroo ba léegi euh, bés bu nekk ñu am ci invité ñu waxtaane lu jëm ci gàmmu gi bu ñu waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala waxtaanee maam Cheikh Seydil Hadji Malick radiallahu taala waxtaanee mbindam tey nag macha allah ñu dalal ci borom xam-xam daaw ci waxtu wi ñëwoon na fi ñu waxtaanee téere maam Cheikh Seydil Hadji Malick bu tedd boobu di kifaayatu raaxibiin macha allah ren tamit ñu fekkewaat ko yàlla nañ ko fekkewaat ay déwén ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Cheikh Ahmad Tidiane Sakho تبارك الله دي مبوك دي خاريت واي دي غورو نيو دالال كو تي بلاتو بي بايلا سيدنا الشيخ نغ نيو اك نيغا خامني نيوم نيو نيو سيتان تي اس في اي دوغ تي وقتان بي الحمد لله الذي انار قلوب اصفيائه بشموس انواره وهدى من شاءه من عباده الى ما يقربه من طاعته وعبادته واختار من بين عباده الصالحين رجالا لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله ليكونوا منارا على سبل طاعته والتقرب إليه وأشرق في قلوبهم من أنوار الإخلاص في بدايته ما يتهيئون به لورود مقامات الاختصاص في نهايته مانح جل جليل عطاياه لمن اصطفاه وواهب عظيم سجاياه لمن اتباه وأصلي وأسلم على المصباح المنير البدر الكبير الفاتح الخاتم لما أغلق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدري ومقداري العظيم مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن الكنز الغني والبحر الخدم السني رئيس أهل الهدى ووزير أهل الاهتداء إمام الأولياء وحامل لواء الأصفياء سمي وحبيبي شيخ سيدي أحمد التيجاني عليه وعلى آله وعن جميع أسرة وعن جميع أهل طريقته إلى يوم الدين ورضي الله عن خليفته الموسل لإمداداته مولاي شيخ سيدي حاج مالك سي عليه رضا المالك تاب عليه وعلى جميع الأسرة آه، المالكية ورضي الله عن جميع خلفائه وأحبابه حتى خليفته الحالي الشيخ سيد أبو بكر سي منصور ذي الشيبة النيرة والهيبة النورانية من سمته حكمة ونطقه حكمة ورأيه رحمة وإشاراته نجدة وتصريحاته محمدة أعني به شيخ سيدي أبو بكر سيمنصور أيده الله ورعاه مبكي أسفياوي أكم بولم أوديتوريك تلسبكتاتي دي خم نيجي توبو تلفزيون أسفياوي تي في أك راديو بيب تي إنترنت بيك تي فيسبوك يجيب نيجي لين دي نيو دي لين زيارة دي لين جوكسين واتش واي دي نيان بروم وتعالى كاد دي نيو يالا دوال مفكلين تي جامو أكسلام آمين. آمين. di jiital ci nuyoo bi xalifa général des Tidiane mhm. sëriñ Babacar Sy Mansour mhm. ñaanal ko yàlla subhaanahu wa taala yal na yàlla wooy te taawul ko yen bi mhm. guddal fanam yokku wéram ak man ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal mboolem usra malikiya Euh, di nuyu tamit mboolem ñi nga xamante ne ñi nga aju ci kër Seydil Hadji Malick ak mboolem fu jullit nekk rek ñi ngi lay jox sa wàccuwaay di la mhm. nuyu mhm. di nuyu suñu sëriñ mhm. Cheikh Seydil Hadji Maodo Malick Sow di ko ziyaar bu baax a baax di ko jox loxo xol fa mu toog ca daara ja daara Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour ñaanal ko yàlla yaana yàlla yokk wéram waaye di jiital tamit si nuyoo suñu ko ziyaara fa mu toog ñaanal ko yàlla yaana yàlla yokk wéram nuyu mboolem ñi nga xamante ne ñi ngi teewlu asfiya yi rek di leen ziyaar di leen jox seen wàcci waay waaye nuyu suñu buntu ci xadara Seydil Xaaji Malick muy suñu Cheikh Ahmed Tidiane si ibnu Cheikh Mouhamadul Mansour suñu Babacar di la nuyu suñu goro suñu lépp fa tabarakallahu xam naa goro moom bu invité goro moom tabarakallahu xam naa dana dana dana kii alaa daw mi waaye <laughs> fàtte dinaa fàtte di nuyu xamaru zaman incha allah ñu ngi koy ziar bu baax xam nga nag mooy kan xamaru zaman est-ce que mooy leeral àdduna nag xam naa bu ñu yegsee bu ci mujjantal moo wala nu muy leeralee àdduna <laughs> incha allah ñu ngi ziar ñëpp di nuyu ngir waxtu yi bañ ñoo xoj moo tax ñu gàttal nuyu yooyu rek waaye képp koo xam ne yaa ngi ñuy rek fa mm-hmm. tabarakallahu ñu ngi lay jox suñu nuyoo xool macha allah mm-hmm. tabarakallah euh, jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh Ahmad mm-hmm. euh, wi waxtaanee mam Cheikh Seydi El Hadj Malick radiyallahu anhu ci bindam. ndax li ñu seetlu ci bindu mam Cheikh Seydi El Hadj Malick radiyallahu anhu. boo koy jàngat ci façon bi mi bindé ak déggin bi nga ciy am. sha allah ak façon bi mi waxé newna na nga fekk ko ci benen borom xam-xam wala ci benen bindikat bo xamné ne. mi ngi bind moo xam chor la wala nasr waaye ni nga koy maanaam ni nga koy taxamte ko ci biiru maam Cheikh Alhaaji Malick néew na nga gis nga gis ko feneen may googu maam Cheikh Alhaaji Malick am ci woy jagle gim ci am loolu lan nga ñu ci mën a wax waaw sëriñ Babacar boo xoolee maam Cheikh Seydi Alhaaji Malick radiallahu taala anhu ci tënk moo tax ñu jëfandikoo al bu'dul ilmi wal fanni wal fanni dimension scientifique ak artistique maam Cheikhul Xaaji Malick yàlla daf ko wërsëgalee lu bari loo xamante ne ñu bëri euh, mën naa ne euh, yàlla yàlla wërsëgalee wu leen ko ci wàllu mbind ndax boo xoolee Cheikh Seydil Xaaji Malick dafa mane ci ñaari côté yàlla dimbale ko ba pare teg ci loosam loo xam ne amul temps wu def li gaa ñi di def mhm. waaye malgré ñàkk temps li gaa yi di def mhm. fexe ne ba li mu nekk mhm. te mooy liggéeyal waaru sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fexe ne ba li yi nekk mooy yi mm-hmm. la ñu nekkoon di ci wàllu ci wàllu adab mm-hmm. nga xam ne dañuy téye shiaru mm-hmm. di ci wane seen baraa ci seen raw ak aay gi ñu aay ci wàllu way di ko génn ci wàllu suwar balaaxiya yi di ci wane ak majaazaat yi ak yeeg yeneen ak yeneen yëpp ñu ko ciy wane maam Cheikhul Xaaji Malik radiyallahu taala anhu yàlla dafa dogal temps bi muy toog di way di tagg bariwul déedéet temps bu muy toog di way di tag di tagg kon day way di def lan. maam Cheikhul Xaaji Maalik amul woon sax jotu tagg di tagg di way. est-ce que. ndax responsabilité bi nekkoon ci loxoom. ci jottali chariatul bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. responsabilité boobu dafa diis. te mbaa yëg nga ne Cheikhul Xaaji Maalik bi mu fii nekk am na ci ay xeeti xam-xam yoo xam ne dañoo raaroon mag ñi ku ko ku ko mosaana soxla il faut nga dem ba Mauritanie. dëgg la wala nga dem yeneen réewi naar yi pour mën a am téere gis téere bi rek bi ko bind. pour nga mën a ci xam-xam boobu maam Cheikhul hadji mali bi mu ñëwé yàlla dogal ñi muy jëflanté ci Sénégal ñu ci bëri téré yu bëri yo xamantene jotagul sax mën yex ci biir Sénégal kon bokku na ci responsabilité moom maam Cheikhul hadji mali mu fexe ba téré yoy nga xamné da fay rar mom mawdo mu jël ci xam-xam bi ko yàlla dénk mu taalif téere yooyu au lieu nit ñi di ko dem wuti ji feneen mhm. moom Maodo mu jegeñal leen ko mhm. taalifal leen ko tegal leen ko seen kanam jàngal leen ko ñu mën a nekk ay borom xam-xam te boo xoolee sax téere yi ñu daan jéggaani ak yi leen Maodo taalifal am na différence bu rëy maa ngi ciy ñëw léegi <laughs> euh, danaa ci ñëw léegi ci différence bi ci nekk ndax ci côté fan bi mhm. mooy aar bi coté coté côté maam Cheikhul Hadji Malick ni muy waye ndax gis nga Cheikh El malik su fekkoon dafa concentré wu rek ci mat moy way di way yonent bi rek di way yonent bi di dem kon boba danañ am vide bu reuy ci walu xam xam-xam ci Sénégal parce que limu limu collecter ci walu xam xam-xam ndëxañ ko ci ay téré wallahi su fekkoonte ne dafa def contraire moo ñëw rek di tag yonent bi rek malgré ak ciofel bi ko yàlla dénk ci yonent bi parce que kuy wax cheikh Hadj malik ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay xam ne ñoom ñaar ni lañ def wallahi xolam tamit boo ko xaree yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek nga cee fekk wallaahi waaye malgré li muy sopp sopp yonent bi daf ne dama koy appliquer ci beneen côté gaa ñi gis naa shuara yi ñu doon way dañuy way yonent bi way yonent bi di tagg yonent bi di tagg yonent bi parce que seen cofeel foofu la toll moom Cheikhul Xaaji Malik mu ne man sama cofeel dama koy changer beneen formule laa koy indee mooy damay fexe ba sunna yonent bi ak lay ballee ci alquran ak sunna muy xeeti xam-xam yi ci lay joobee sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama cofeel foofu laa koy wane moo tax jamono buy way moom Maodo ci biir way bi da nga ciy santiraali ni mu soppee yonent bi des fois day way ba yàgg moom Maodo mu dugal sërxal salaatu ala nabi mhm. amu fa place de ah. jumla i'tiraadi ya la koy def waye way ba mu neex ko mu tëmbal benn salaatu ala nabi nga tàqamti ko ci way bi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam chargé waat sa batterie door a commencé waat ko akbar kooku cofeel gi la lay branché waaye li ma ci gën a yéem ci fànnay wax wayam ndax mhm. temps bi di ñu bañ a njat fi ma waroon jaar dama koy wiiri mhm. boo xoolee maam Cheikhul Xaaji Malick radiyallahu taala anhu dafa wuute gaañu bëri ci wàllum mbind yàlla da ko cee may ma dugg direct ci thème bi ni ko ci yàlla maye boo xoo boo demee ci borom xam-xam yi am na ku ñu tuddee Asakaaki Asakaaki moo bind Miftaaxul Ulum Miftaaxul Ulum benn téere la bu rëy boo xam dajale na xeeti xam-xam yu bari ci biir téere bi dajale na naxu dajale na sarfu dajale na balaaxa daanaka moom li mu ci balaaxa kenn xamul nu mu toll bokk na ci ñi nga xam taxawal nañu jàpp nañ ci tasaaroo xam-xamu balaaxa mu bind téere bi def ci xeeti xam-xam yu baree baree bari téere bi rëy lool Xuzwayni ñëw talxiis téere boobu génn ci balaaxa bi kese talxiis boobu imaamu suyuti ñëw uqudul jumaan mu dal ci ciy taalif def ko junni bayit al akhdari mi nga xamne mo bind al akhdari bi ñi jàng ñëw def al jawharul maqnun fi sarafi salasati funun mu def ko mu def ko mumit ay way ci ñetti téméré bayit ak lu top nga gis comparaison bi ma bëgg def. ci imam Sakaki ak Cheikhul Hadji Malick. radiyallahu taala anhu. imam Sakaki xeetu xam-xam yooyu yëpp daf ko dajale ci benn téré mais chapitre par chapitre la xam-xam bu nek ak ay ngaru bopam ay chapitre bopam Cheikhul Hadji Malick ñëw. ci benn qasida mu booleel la ci ñetti xeeti xam-xam. yo xam ne da koy jàng ta ci même qasida nga koy jàng ci Babacar. ñetti xeeti xam-xam ñetti xeeti xam-xam. yo xam dang koy jàng dang koy jàng ta benn qasida bi nga koy jàngee. ha koku fan moko man ma ar ki ki kii xam nga tay Euh, boo ñëwoon ne ma jox bi kuy benn waay bi peinture nga ne ko dama bëggoon nga dessiner ma fii dara. waaw gis nga lu mu mën a mën a peinture su fekkente ne amul xalfiye ci mhm. wàllum dessin mhm. dessin. Mhm. mënoo wax ba mu dessiner la fi li nga bëgg. wax nga dëgg. il faut jumtukaay yi mat. peinture yu mat mélange bi mat yëpp mat mu soog laa mën a dessiner li nga bëgg. dëgg la xam-xam bi nekk. maam Cheikhul Xaaji Maal dafa mel nag ay potu peinture dafa dafa nekk ci wetam. mooy mélange yu ko neex couleur bu mu bu mu bëgg rek da koy génn. allahu akbar. xam-xam yi noonu la mel moom. xam bu nekk potu peinture la ci moom. ci biir xam-xam yooyu nag nga xam ne ay potu peinture la moom Cheikhul Xaaji Malick mooy xool ban couleur la bëgg a am mu mélanger couleur boobu comme boo demoon ci usine ba ñu lay jaay ne la couleur tel laa bëgg laa bëgg a commandé mu mélanger la couleur boobu jox la maam Cheikhul Xaaji Malick loolu la loolu loolu la def ci wàllu aar ci xam-xam mu bind benn téere boo xam ne téere bi tey da ngay ñëw ci Xaaji Maodo Malick Sow fa mu toog waaw nga ne ko sëñ bi man de damaa bëgg a jàng xam-xamu arut mu ne la mu indi indil kaye sëñ Babacar nga indi kaye waaw mu bindal la ca kaye ba halil iisu tajri lil arudi aruduha sawamida laylin waqidatin tawaquda tajubu ila niqil uqaabi fayafiya ya aqibu la tahdi ilayhinna sarmada yunashituha lamaanu barqin lamaanu nuurin waraaha alayha saka sukaara maa yubaaluuna say xada di ko topp di ko topp ba jeex ba atil madadan wabsid wa waffir mukammilan muhazija rajzi ramli saran ilal yada xasidi maam maam Cheikh El Hadj ko way ci ci arut ci yow mi bëgg a arut yow mi bëgg a jàng arut dem ci Cheikh El Hadj so ne ko dama bëgg a jàng arut waaw xasida lay jàngal maanaam téere la lay jàngal téere bi la lay jàngal waaw te du du dépassé arut nga dégg arut mën a way ci règlement ci règle yoo xam ne yu jaar yoon lay doon mhm. nga jógee fa dem ci Hadj lamin Ñang mhm. ne ko sëñ Lamine man dama bëggoon a jàng tasawuf tasawuf waaw mu ne la halil iisu tajri lil arudi aruduha sawamid laylin waqidatin tawaqquda tajubu ila niqil uqabi fayafiya ya'qib la tahdi ilayhi an-nasar mada meme qasida bi la haji mawdo mali saw don jangale dila arut mom la le seigne lamine ñang dila tegalatal meme qasida bi jangal la ci tasawuf ta dula tuddal len arut allahu akbar koku cheikh al haji mali koku fan dimension bu kawé ci walu xam xam mhm. nga jugé fa dem ci seigne ablaye fall ci misal ne dama bëggone jang sama mhm. bëggone améliorer sama langue mhm. langue ci arab Abdoulaye Fall ne sëñ Abdoulaye Fall ne la indil kaye nga indi kaye mu ne la halila aysu tajri lil arudi aruduha sawamida laylin waqidatin tawaquda tajubu ila niqil uqaabi fa yaa fi yaa ya aqibu la tahdi ilayhinna sarmada wàcc ak yow ci suuf jàngal la luga te du laal ak yow arud du laal ak yow tasawuf allahu akbar lépp ci benn xasida lépp ci benn téere bi est xam nga borom xam yu jiitu dañ doon def taalif yu bëree bëri dangay sonn ci jàng bi boo paree jàng bi boo paree jàng bi mhm. Cheikhul Xaaji Malick ci benn téere mhm. ci benn téere ci mhm. dimension xam-xam ak taalifam benn téere bi ci ngay jàng arut soo mokkalee fànnay arut ñu tegalaat la même téere bi jàngal la tasawuf nga mokkal fànn ci tasawuf ñu tegalaat la même téere bi jàngal la luga nga am sarwa lugawiya allahu ci benn téere ci benn téere ci benn téere bi te du du ñu changé ab yaay di te ki lay jàngal fànn ba du laal fànn amul benn côté buñ ci laal ak benn côté buñ ci changé est-ce que Maodo maam Cheikhul Hadji Malick ci taalif noonu la ko yàlla may nga xool day dem ba ci biir mu ne wa idmaaru nafsin xabnuha fa mafasatu nga ñëw ci kii jàngale arut mu ne la idmar idmar de mooy iskaanu thaani mutaharrik maanaam ci way comme tey boo waroon wax mutafailun nga nga nga sukkoon ñaareel ba nga ne mut faailun mm-hmm. mm-hmm. kookoy idmaar nga dem ci ki lay jàngal tasawuf mu ne idmaaru nafsin mooy nga fexe ba sa bakken la mu soxla nga nëbb ko ko mm-hmm. dégg nga wax ji waaw kii lim la jàngal mooy idmar mooy iskaanu saani sa mutaharrik ñaareelu araf ba nga xam ne dañ koo dañ koo masque vocalisation bi fatha la nga def ko sukkoon lool mooy loolu nga ñëw ci ki jàngal tasawuf mu ne idmaaru نفسي moom موي nga fexe ba sa bakken nga neub ko comme damir mustatir ni ñi neubé damir mustatir akala ak xaama ñu ne fi'l madi mabni ala fatha wa fa'iluhu damir mustatir ni muy neubo non ngay neubé sa bakken ba lépp lu caaxaan ak lépp ngon duko duko xol allahu akbar allahu akbar xolal mawla khabnuha fa mafazatun khabnu nga ñëw ci ki lay jàngal arut mu jàngal len ne la khabnu mom moy hasfu sani sakin moy ñaareelu xaraf ba ci boy way boy way may nañ la bu fekente ne bat bi ngay utiliser du mengo place ba may nañ la nga hasaf ñaarelu bat ba au lieu nga wax mustafilun nga ne mutafilun ci bahru basin waaw asaf si dindi sin nga dindi sin au lieu nga ne mustafilun nga ne mutafilun kokoy koy xabnu maam Cheikhul hadji malik na ne ci walu aaru nga ne xabnu sa bakken fexe ba ba éliminer sa bakken waaw koku ma fazatun foofooy texe allahu akbar texe deug mi ngi nek ji ba fexe fexe ba sa bakken biñu tuddé an nafsul amaara bisu nga éliminer ko allahu akbar النفس الأمارة بسوء أك النفس اللوامة النفس المطمئنة يوي فخل بجروم نياري خيتي بكني ترافيرس النفس الأمارة بسوء جيني النفس اللوامة دوكو النفس المطمئنة دمت النفس الرادية دمت النفس المردية دمت النفس الكامل ترافيرس النفوسي بكن بر بكن فخبنها فماز مفازل الله أكبر لول تيمم تيري تيمم تيري يموت من ووقص هواها nafsu la waxoon de. waaw mu ne wa waqsu hawaaha. waqsu mooy xasaf saani mutaxarrik. ñaareel loo xam ne dañ ko comme mutafaa'ilun nga ne mufaa'ilun nga dindi taagi. maam Cheikhul Xaaji Malik ne ci wàllu arut wa ci wàllu tasawuf wa waqsu hawaaha. nga fexe ba fekk bànneex bi. teg ko à côté. bu mu jubloo bu mu dugg ci sa biir. allahu akbar hawaaha haa gi nga dellu ci an nafs. waaye nag tayyu umrika. tayyu ci arut. tayyu ci tasawuf. teyu ci luga teyu ci arut mooy teyu ci arut mooy xasfu rabii saakin mooy ñeenteelu araf bi nga xam ne dafa sukkoon nga xasaf ko comme mustafilun mhm. nga effacé faa gi mhm. nga ne mustailun mustailun nga xasaf faa gi mhm. kooku lay fànn arut bi di jàngale nga ñëw ci maam Cheikhul Xaaji Malik mu ne la ci wàllu tasawuf bi nag tey umrika mooy nga résumé sa dund nga résumé sa dund lil huda cig njub اسكي سدون يب رجمي كتنجب ألا عمر والله مستطاع رجوعه فأرأب ما أثأيت ساعة غرتي والله aka neexoon dund gi mën a ñëwaat ma réparé la nga xam ne jotoon naa yàqu ci ginnaaw mu ne tey yoo umrika fexeel nga résumé sa sa dund sëñ Babacar lii lenn la ci fànna ci aaru maam Cheikhul Hadji Malick ak dimension artistique ci wàllu wayam nga xam ne day jël benn benn benn wax rek wala benn xasiidam benn njàngaleem xëppal la ci mboolem xeeti xam-xam yi nga xam ne da nga koy soxla xam nga lii fa tabarakallah ku ko jàng benn yoon nga mokkal xasida bi dootoo sonna di jàng benn da ngay jàng am nga arut am nga tasawuf am nga luxa ci ci benn téere waaw moo tax maam Cheikh sëñ Babacar waxoon ko ne wal bahrul xidam fala yutaama moom moom Seydil Hadji Malick mooy géej gu ngalas maare gi nga xamante ne kenn du kenn du yëkkatiku wanteeg moom ay duusi géej isal am waaju fadat min maani kooku ci jagleem la la ko yàlla may muy benn bu ñu ñëwaatoon tamit di xool. Mhm. ci fànn yi maam Cheikhul Xaaji Malick ci wàllu taalif. Mhm. ak euh, euh, technique bi ko ci yàlla may. Mhm. mën nañoo xuus tuuti tëb yenn yu bari. ndax euh, hidaayatul wi daal bëggoon naa fa dugg. ndax nam fa njaxasee. ni mu njaxasee fii. noonu la njaxasee ba tey timit ci hidaayatul wi daal ci usul bi ak tawxiid bi. est-ce que usulul fiqi. ak tawxiid la njaxas foofu ci hidaayatul wi daal. nga xam ne da nga jàng tasaw da nga jàng usulul fiqi. ci même téere bi en même temps nga ciy jàngaale tawxiid ci même téere ci bi ci Hidayatul Ilahi dafa résumé suñu dund gi yëpp ci xam-xam li gaa yi doon li yi doon man am ko ci temps ci way mhm. moom daf koo jël yëpp def ko ci xam-xam en même temps yaa ngi yëg sentir aaru way ci dëgg mhm. poésie ci dëgg mhm. ci boppam yaa ngi sentir aar boobu ci biir njàngale moom Cheikhul Hadj Malick mu lay jàngal di la may sentiment ci wàllu ci wàllu poésie macha allah ñu ñëw ma uh-huh. bàyyi hidayatul wala ndax temps uh-huh. ñu ñëw ci abada bu ruuq masalan mhm. ñu xool maam Cheikhul Xaaji Malik ci abada bu ruuq mhm. commencement bi mhm. li ñu tuddee baraatul istihlaal baraatul istihlaal suñ ko mënoon a expliquer ci wolof mooy tey par exemple nga bëgg a wax lu aju ci wàllu gàmm introduction bi première baat wala deuxième baat da nga fa junj luy wax wàllum gàmm ku dégg rek dana xam ne ah, kii de li mu a wax tey mooy wàllum gàmm bala ngaa dugg rek dana xam ne fi nga bëgg a wax loolu mooy baraatul maam Cheikhul Xaaji Malik ñëw tàmbali ne abada buruqun taxta junxi dalaami am wajhu mayyata am rubu shamaami abada buruq taxta junxi dalaami dafa def lu ñu lu ñu tuddee tajaahulul aarif mi ngi tagg yonent mi ngi woy yonent bi di jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais en même temps mi ngi ñu ciy jox xeeti xam-xam tajaahulul aarif mi mi ngi tagg yonent bi saa sallam di ñu jox xam-xam di ñu joxaale ci biir mu ñu jox xam-xam muy tajaahulul aarif tajaahulul aarif mooy réer réer loo xam ne xam nga ko. waa kii du Babacar. xam naa ne yow. Ah. waaw loolu mooy te jaaxalul xam naa ne yow la mais dafa am lu ma dama bëgg a sa attention pour nga mm. bàyyi xel ne man xam naa la. Mm-hmm. waaw. koo koy mu ne abada buruuxun mm-hmm. ndax dafa feeñ buruuxun ay melax. Mm-hmm. taxte junxi dalaami ci suufu jaxasoog lëndëm kukkug lëndëm. mu toog ba yàgg di imaginer mu ne déedéet am wajhu mayyata wala kanamu mayya laay gis muy ndaw si muy defee xasal. ba yàgg mu ne dedet am rubu'u shamam wala limay gis pàkki shamam la muy montagne bu nek ci wetu Madina lan lañu jangate ci aru Cheikh mam Cheikhul haji Maalik ci bilay bayt bi mu abada buruq buruq moy firi ay melak daf ko def pluriel jam barq ci bir batu barq bobu mu def dañ ci deggene mam Cheikhul haji malik dafa am ben lumière bu mu gis muy tak lumière boobu mu gis muy tàkk daf koo wër kanam ak ginnaaw ak fépp la ko wër. Mhm. ba mu ngi mel ni dafa leeral fi mu taxaw yépp ba yàgg li muy gis nekkatul leer. Mhm. leer gi e-, effacé wu mu gis jëmm ji mu gën a leer mu ne am moo ji may yeta. est-ce ndekete foofu mu ngi wax an nuurul muhammad yi leeru sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ci njëlbeen bi gis na leer gi mais leer gi xamul lan la. gis na nekk ba see yàgg rek yaa ngi gis ak leer muy muy tàmpi di ñëw. xamoo lan la. mu ne tax te taxta jurxi dalaami mm-hmm. ba yàgg mu ne am wajhu mayyata wala li may gis kanamu mayya la mm-hmm. muy jëmmi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi mu jël ko misaale ko mayya mu jékki saay ba yàgg rek leer gi na gën a leer mm-hmm. kanam googu gën a leer ba place ba kanam nga jëmm ji taxaw sax mu gis ko mu ne am rubuucu shamaami kon xam na jëmm ja ah, waaw commencement bi leer la woon njëlbeen ba gis na jëmmi yonent bi ñetteel ba dem na ba place ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw gis na ko loolu mooy wane ak jege parce que mbir boo ko soree day tuuti ci yow. Mhm. looy gën a jege muy gën a rëy looy gën a jege muy gën a rëy. Mhm. loolu la maam Cheikhul Xaaji Malick di imaginer foofu. mais li ci gën a yéeme. Mhm. suñ Babacar. mam Maodo mi ngi jëfandikoo abada buruqun taxta junxi zalaami. pourquoi mu jëfandikoo junxu zalaam. lu tax rabtu ko maanaam tënku ko ci buruq. image bi lay jox. image bu aare la. mooy melax boo xam ne. mi ngi xuy ci jamonoy lëndëm mhm. courant coupé mhm. lamp yi benn tàkkatut nga gis melax bi na ray mhm. ni muy nekkee lu aare ci kaw asamaan si maam Cheikh xaaj Malick image boobu la la bëgg a jox Allahu akbar pourtant mënoon na laa jox bëccëg waaw waaw na laa jox ngoon mais daf ci tëb yooyu yëpp jëm julxu zalaam lëndëm nga xam ne day ah day leer nañ ci kaw asamaan si mu ne am am waj am abada buruqun taxta junxi dalaal muy benn ñaareel bi maam Cheikhul Xaaji Malick wax ñu ci biir même bayit bi ci bayit bi rek la nekk wan nañu ci biir bayit bi bayit abada burux gi moom moo jur xilaasu zahab abada burux bi abada burux ak ni nga koy gis noonu mu nekk téer bu xaw a yem ni nga gis xilaasu zahab mu rëy lool ci maanaa abada buruk moo jur xilaasu zahab waaw ci naka noonu kay أبدا بروق تحت جنح ظلامي أم وجه ميت أم ربوع شمامي ما أرعد الرعد والورقاء تنحب من هدي لها وجرى دمء من القلم كوكو أكو أم الأرتي ويمنو الله أكبر ما أرعد الرعد آه. أبدا بروق آه. ما أرعد الرعد آه. ci science ملخ bu tàkkee tàngaay boobu courant bi mooy mooy mooy mooy waral dënnu mhm. mooy waral dënnu di am mhm. bii bu ñuy gis la. bii bu ñuy dégg la melax dañ koy gis. dënnu dañ koy dégg. dëgg la. léegi bi bi abadaa buruqun xuyyee. melax. waaw ci la maa ar ada raadu judd. allahu akbar. est-ce que seetlu nga wax ji ci la maa ar ada raadu judd. léegi nag nga war a rabtu nag maa ar ada raadu ban dënnu la. waaw kay. ban façon dënn moo jóg ndax dënn bi ñu miin la wala ban façon dënn la. ci aarub ak dimension bi maam Cheikhul Xaaji Malik di wax. radiyallahu taala anhu ما فكر الرعد بابو مو رعد الحق كلمة الحق الرسالة النبوية ما أرأذ الرعد مو رسالة ينتبي صلى الله عليه وسلم والورقاء تنحب من مو دعوة وأنذر عشيرتك الأقربين والورقاء تنحب من هديلها وأنذر عشيرتك الأقربين والورقاء تنحب من هديلها وأنذر عشيرتك الأقربين وجرى دمء من القلم نكما سيبند وحي قلم واو في لا زهب لا جدو تي معنا الله اكبر كون ابدا بروخ اها موي يايو خلاص ذهب اها تي معنا اسكي موتاخ نيان جي فمام شيخ الحاج مالك نيان رضي الله تعالى واله المهتدين القيرة الكرماء المؤتمسيرة المختار والقدم ما ارد الرعد صلاتك سلام غوغو مي نيان مانكوي نيان ما ارد الرعد فيك رساله يونت بي صلى الله عليه وسلم ميغي كونتيني ماغي لا نيان يا صلاتك سلام دي كونتيني صلى الله عليه وسلم والورقاء تنحب من لفك دعوة نيجي ووت دي جمل تي يونتي لفك نيجي كونتيني يانا يالا دي جولي تي سجدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجرى دم من القلم سبيك بينتي لفك نيجي جنة أنكر دي بند yann salatu ak salaam di ci yonenti bi machine bi nga tim di tapé li fekk clavier bi mi ngi bind yann salatu ak salaam nekk ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam salaatu googu kañ lay jeex abadan di jeex xanaa motax tax mu ne ma adar ra'du wal warqa tanhibu min hadiliha wajara damun min alqalam doora ñëw ne ko innahu iz arada allah nashatana abana min nurihi mu delu wat ci buruqiya abana min nuurihi abaana min nuurihi mu delluwaat ci buruux ya ndax leer gi yàlla mu ngi ko jëlee ci leeru yàlla subhaanahu wa taala la yàlla jëlee bind ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leer googu di xuy cheikhul xaaji malik nee wa innahu id araada allahu nachatana abaana min nuurihi nuuran nabil alami leer googu nag moo dikkal maam cheikhul xaaji malik muy laaj li may gis lan la leer na ne moom leeru yonent bi la mais day réer réeru bëgg xam lan la mu abada buruuqun taxta junxi dalaami am wajhu mayyata am rubu shamaami technique gu Maodo. allahu akbar muy benn. muy beneen. bi ci topp ci technique gu Cheikhul Xaaji Malick ci way abadaa bu ruuxun tax te junxi dalaam. Maodo mi ngi ñu fay jëmmalal bii ab bi nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo. ataa wal kufru. fii jawrin wa zulmin. fa qaadal kulla an diinin li diini. wallaahi. yonent bi bi muy ñëw dafa fekk gaa ñëpp ñu ngi ci caaxaan ñëpp ngi ci réer ñëpp ngi ci ak shirk fa qaadal kulla an diinin li diini kooku mooy junxi zalaam lënd mu xol la lënd mu xol lënd mu xol mooy jun junxi zalaam buruq yoy moy leeru risala yonenti bi bi risala yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wàcce nak ci la leeru lënd mu xol yoy daldi daldi jeex tak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam daal di leeral bi yëpp bu mu jeex mu ne abadaa buruqun taxta dhalami motax mu tax mu jëfandikoo baata junxi dalaam macha allah waaw ma ci abada buruq bo boo ma bàyyi ma buruqaat ci kanam xam xam na comme mu nga daaneel foofu rek ñu njëkkalante ak waxtu yi waaw kon ma tëb lu bari pour wàcc ci foofu bu ñu xoolee ci technique gu maam Cheikhul Xaaji Maalik ci woy ba tey ci abada burux ba tey ndax xasida bi bu ñu ko toppoon benn par benn li ci nekk ci technique gu woy bari na maam Maodo benn bayit bi ci baraatul istihlaal mhm. baraatul istihlaal mhm. jàngal nañu ci formilu xasida bi hmm? ci commencement bayit bi ci la ñu jàngal xasida bi nan la ko formé ci commencement bayit bi ci commencement bayit bi ci abada burukun buruq moy jam jam u barq la waaw jam u barq la manam plurielu ben melak bo ne barq moy ben melak moy mufrad bi moy mufrad mhm. bi moy singulier bi mhm. buruq moy ay melak pluriel la mhm. wajhu ben la singulier la waaw rubuu pluriel la jam u rab mam cheikhul hadji malik ci bayit bi commencement bayit bi ci lañu jangal façon formule qasida bi ci boppam bo ne abada buruqun moy jam u mi ngi tàmbalee ci saxaaba yi yéen mm-hmm. abadaa bu ruux bi euh, Seexu Xaj Maalik saxaaba yi li ci njëkk a way mm-hmm. mooy jam u bi mm-hmm. moo tax mu def bu bi mu def ko jam u pour mu représenter mbooloom saxaaba yi muy way muy benn mu ñëw ci deuxième am wëcc humay yeta mu def ko singulier parce que xasida bi dafa dem ba ci digg ba mu way ci jëmmi yonent bi kese benn saxaaba raxu ci sallallahu alayhi wa mu defat am rubu'u shamami mu def ko pluriel mhm. parce que dafa dem ba ci mujjantalu qasida ba mu wayat fa sahaba yi kessa yonenti bi bokut mhm. kon dafa def pluriel def singulier defat pluriel parce que qasida bi mbolo la way muy sahaba yi mhm. way kenn muy yonenti bi wayat mbolo muy sahaba yi moy pluriel singulier pluriel mu jëmmal formule qasida bi bi nga xamantene mom la mom la Cheikhul Xaaji Malik di way yonenti bi ak ay sahaba كل لي دام كوي سانتير تي اريك خم خم مام شيخ الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه با حتى غيس نغ ما باي اودا بو روخ لي مجي بغ واخ لي بري بو نيوي تي لقد حاجه تيك نيغو مودو لقد حاج قلبي للحنين عجول تي شيخ الحاج مالك كين دو موم رضي الله يانا يالا فايل نيكو اللهم امين غيس نغ بون لقد حاج قلبي للحنين عجول وركب الى واد العقيق عجول فم فم مي فا جيفنديكو نياري عجول مو جيناس تام بو مات سك عجول عجول تا نياري بن بوكول بن ميفري ñaari ajuli yëpp te ñaari ajuli bokkuñu ñoo ñoo ñoo bokk. même ñoo bokk même ni ñu leen bindee. ma bokk maas yi bokk maas bokk lépp mais bokkuñu li ñu firi. loolu ñu tuddee jinaas am. jinaas tam. est-ce que benn mi ngi firi ku yara dal benn ki si mu si mubaalaga la ci gaaw. allahu akbar. te ñaar yëpp ñoo bokk ni leen bindee. من لقد هاج قلبي للحنين عجول ورب الى واد العقيق عجول قصيده بي مينكو واي تي بيم بوغي دم مكه افير دي غالنكور دي ام غالنكور ناخ بو ديمي با تي بير قصيده بي ميغي واخ نان فدنياكم وهاكم اذا عقن القدا ان الزور من دار الحبيب خليل نعم، سين ادنا غوك سو فكنتنا نم ما دم زياره جي رود يونتي بي غير غالنكور ادنا يي كون ادنا بي ماي غالنكور بور ما باغا دم تي يونتي بي باينا لينكو سوخلاتو مكو fa dunyaakum هاكم سن أدنى àdduna جلين إذا leen idaa aqanil qadaa su fekkente ne ndogal li daf maa nar a gàllankoor ba du ma dem ziyaari ji yonente bi soxlaatuma dëkkati àdduna wallaahi ki ma bëgg ndax ki ma saf ci àdduna kenn la mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi lu ma nar a gàllankoor ba du ma ziyaari ji yonente bi rek soxlaatuma ko ida aqani al qada an zawda min andaari alxabibi xalilu mu doxal ba ci biir mu ne fa qultu li wa qultu li ayni xam nga daf ne sama xol de daf dafa lëmbaajewu dafa yëngatu ngir cofeel bi ma am ci yonent bi ci misaal ci gàttal sallallahu alayhi mu ne bi mu yëngatoo rek mhm. waqultu mhm. waxul fa xultu mhm. su waxoon fa xultu rek technique am da da koy réer bu waxoon wa fa xultu technique am da koy su ma amaatahu fa aqbara fa aqbara faa gi day tegtale ne action bi bi mu amee ci saasi action bi dañoo dañoo réagir ci saasi loolu la faa di tegtale مام شيخ الحاج مالك وانينا فوفو تيوفال جيمو ام تي يونتي بي اك ياغ بوج جيمو ياغ بوج زياره جي يونتي بو تمو تكو وانينا كو تي بير باتو فا و وقلت لعيني بو واخون فقلت لعيني رك كون تي تاي تاي تاي لاكو تيوفال دي دغو en même temps tey tey tey ci la bëgg a dem ziyaari Yonent bi en même temps tey tey tey ci la bëgg ci la wax ay ay bëtam ne ko jooy moo tax mu ne waqultu daal di tëb fële fa tëb fa summa jëfandikoo wa parce que bu waxoon faa rek ñu ne ko kon sa cofeel gi wéru ndax cofeel kat balaa wér daa yàgg ci borom maanaam kon lii lu bees la ci yow dañ naan kan lu bees la ci yow ah, moo tax mu jëfandikoo waqultu li ay in taxallaftu asbi lii danañ koy bind ci téere nag asbu lii mais wérut asbi lii ci ci sarf booba wér asbi lii ndax wax na ko ci xilaasu zahab asbil alayya rida assitri yashmuluni asbil la ñuy wax fa qultu li ayni in taxallaftu asbili bi amtaari shawqin kala aqiqi tasiilu anuuxu kama naaxat xamaamatu aykatin yuhayijuha naxwa albukaa i hadiilu wa duuniya yanqubun naa tëb bayit yooyu yëpp ñëw ci wa duuniya yanqubun مام شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنهم دا فا واخ واخ جو خامني كو ديغو دا نان واو مودا لي واخ لي دي يالا يانكوب جوي يونتي يالا يوسف ديكو جوي با ات اي بتم غومبا مام شيخ الحاج مالك نيو تي 19 ام سيكل لي موم داي يونتي يالا يانكوب اك جوي يمي جوي با غومبا لومي ري ري ري مان شيخ الحاج مالك ساماي جوي موكو اوب دوله الله اكبر جرا تاخو سيل واو pour pourquoi mu mën a ñëw rek. waaw ci wayam mu ne mm-hmm. samay jooy. Mm-hmm. man Maodo mm-hmm. dem na ba ëpp doole jooyu yonti yàlla yonti yàlla yàqub. te te yonti yàlla yàqub doon jooy. doon jooy doomam joo xam ne daf koo per daf koo ñàkkoon. di yonenti teg ci teg ci. Cheikh Hadj Malick nag di jooy rasulullah. di jooy te du yonentu moom. yonent mooy jooy yonent. waaw ndongal yonent di jooy yonent. ndongal yonent bi ne moom jooy yi muy jooy moo ëpp doole yonent bi jooy yi muy jooy ab yonent. ودوني yanqumun ala faqdi yusuf wa tarhamuni waqtan nawahi thakuulu nit ku yara daal sax su ma xoolee day mujj bàyyi fàtte ay ay situation ngir jooy yi may jooy ni mu méttee ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ban technique la maam Cheikhul Xaaji Malick sukkandiku ba tax mu ne wa duuniya yanquubun xam nga dafa am sabab te ngay teg yonenti yàlla yuusuf fii sa kanam teg yonenti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa kanam ndax ñom ñaar ñoo ñu lañuy joy deug la nga tek yonenti yàlla yaqub fi tek mam Cheikhul haji malik fi ya yonenti yàlla yaqub mi ngi joy kii yusuf waaw yonent Seydil Xaaji Malick mi ngi joy kii di sallallahu alayhi wa sallam. legi sababu joy yonenti yàlla yaqub. moy yusuf waaw. sababu jooyu Seydil Hadji Malick mooy yonent bi léegi nga xool ñaari sabab bi bu ëpp doole ki ñuy jooy ñaar ñi ñuy jooy kan moo ëpp doole rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne wa duuniya yanqubu allahu akbar li tax mu am fitu wax wa duuniya yanqubu parce que sabab yi ñoo wuute te ida urifa sabab batala al ajab wallahi al azim bi ñu xamee cause bi tax maam Cheikhul Hadji Malick di jooy ci lañ xam ne ah d'accord nañ ne moo gën a métti la yonti yàlla yanqub ndax yonti yàlla yanqub kam doon jooy sallallahu alayhi wa sallam moo ko ëpp martaba wallahi wallahi tilka rusul faddalna baadu ala macha allah nga gis maam Maodo. ci wayam mi ngi lay jàngal technique gu way. technique gu way en même temps mi ngi la ci joxaale ay xeeti xam-xam. ci biir way moo tax sëñ Babacar waxoon sax wa kullu fannin. lisaani lisaanul qaali lisaanul xaali qaala lakum alqil asa talqi fi taysiri ma asura daf ne ko yow Maodo dafa mel ni daal booy bind xeeti xam-xam yëpp dañuy ñëw rukk sa kanam. nan Maodo lo bëgg bind lo bëgg wax ñongi ma ngi ni jëfëndiko ma jëfëndiko ma parce que ci biir xam-xam ci biir bind yi mi bind danaka mom Cheikhul Xaaji Malik lépp lu ci duggal ma sha allah mboolem xeeti xam-xam yëpp tabarakallah allah daf ko ci duggal Cheikh Ahmad Tidiane xamna ñu ñu ñu jàll rek c'est parce que waxtu yi li ci dess danaka ma ngay jeex te fi ne ben question rek laa amagum da nga wax ci sa biir wax na mam Cheikh Xaaji Malik bindam duy bind di tag kon lu waral min kulli wasfin hamidin hadha ala tafdilin rajaul baraya wa mustahami wa wax بيت بريلة آه. من كل وصف حميد آه. تكنيك لا تكنيك مومي آه. آه خمنا <coughs> نيو تخاني تكنيك يلا لين كوي تخاني واو نخ بين بو نيك ريك بو نتي تخاون ديتاي تي دغ دغ دغ من كل وصف حميد حاز افعل تفضيل رجاء البرايا يوم مزدحم بيت بيكو جيتو موي واخ ما هذا لكن لا يماثل من تواضع وخشوع وخشوع القلب والرتم Cheikhul Xaaji Malik day tagg yonent bi day day jàngale yonent bi di jàngale yonent bi di jàngale yonent bi ba ca biir mu indi buntu mujizaat yi kémtaan yi nga xam ne moom la yàlla may sallallahu alayhi wa sallam ba ca biir na mu ne wa haada maa haada lakin laa yumaathalu min tawaaduin wa xushuuci lxalbi wa ratami mu ne yonent bi li mu am rëy na yaatu na bari na lool la ma tàmbale ca wa innahu is araada allahu nashatana xabaa bi bi shahrayni fii jiimil qiyaamu wàcc ak moom fii xatakallama wàcc ak moom di dem di dem ci xeeti may yooyu nga xam ne moom la ko yàlla may yëpp ànd ak loolu li ma leen tuddal ci biir mujizaat yi terewut lakin laa yumaasalu min tawaaduin miracle yi ko yàlla jox yëpp terewul moom sallallahu alayhi wa sallam moo gën a wàcce boppam ñëpp moo gën a feeti boppam suuf ñëpp kenn du ko dab ci ci ci toroxlu lan la ñuy jàngate ci biir bayit bi Maodo maam Cheikhul Xaaji Malick. radiyallahu taala dafa dafa yen miim. dafa. miim waaw. la fa yen benn responsabilité boo xam ne beneen xaraf bu ko yen woon daanu. moom miim moom miim. wa xaaza maa xaaza. waaw maa ngi lépp lu dalee ca commencement téere ba. waaw ci jaloore yonent bi. ba fi mu waxee wa xaaza maa xaaza miim gi ko gàddu. miim gi moo taawul lépp. wa xaaza maa xaaza. li fi wax ci ginnaaw yépp man Maodo. موم رسول الله هذا لقنك ما ما جي أمبل مي اسمه موصول مبولم كيمتان أك مبولم جار جارو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ميم غوغو موكوتي اسكي مي ميم محمديه صلى الله عليه وسلم موم ريكو كاتان اسكي محمديه كوغو كيس كيس كيس مو اتان ليكو شيخ الحاج مالك ين بنن حرف مونكو اتان الله اكبر الذي munuko ko benen ismu mawsul bo fo placé du ko mën a attan mi parce que mom mo meuna a ak ak muhammad yi xaqiqatul ma yi wa xaada ma xaada mu dem ba ci bir nak mom mawda ci deuxième bayit mu min kulli wasfin hamidin xaada afala tafdilin afala tafdil ci misal buñ ne ku bax la mbax gën amna rafetna dak amna ñaawna am ñaaw amna afala tafdil moy lo wax rek la ca gën loo wax rek la ca gën loo mënti wax la ca gën kooku la ñu tuddee afaala tafdil Maodo ne min kulli wasfin na hmm. bépp melokaan booy jël hmm. laf ca xamidin Maodo hmm. ku am technique ah, gis nga bu waxul woon xamidin googu musiba am waaw kon kon da ngay boole boo boole aw saaf bu bon yeeg bu baax bi <laughs> yëpp da koy jox yonent bi mais ci technique gu fànnay way bi ko yàlla may ni mu ni mu ni mu nekkee artiste ci way nooloo tax mu ne min kulli wasfin xamiidin defal ko naat allahu akbar bu ko defalul woon naat jooju min kulli wasfin gi day dugalaal yépp parce que kullu la waaw waaw wal kullu xukmunaa ala al majmuuci ka kulli daaka laysa za wuquuci kulliye googu nga xam ne moom la Seydil Xaaji Malick dëxëñ foofu nga xam ne ci kulliyaat yi la mbooleem afraad yi yépp dañuy dugg min kulli wasfin bépp melokaan boo xam ne yàlla daf koo gërëm moom rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xaasa afala xamidin xaasa afala tafdil laq na ca ba ca gën a rafet allahu akbar léegi ñu war a laaj lan moo tax yàlla jagleel cheikh sayid sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam mu làq ci jukko bu gën a rafet bu ne mu may ko ca ba ca gën ba ca gën waaw looluy question bi waaw lu tax loolu bu ñu ko bëggee tontu il faut Maodo daf ñuy daf ñuy day ànd ak ñun wommat ñu ba ci alquran tegal ñu aaya bi pour ñu mën a dégg bayit bi iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram muy première آية بيغا خامنتاني واتنا تي القرآن القرآن نخي يونتي صلى الله عليه وسلم بمي لاقتو تي غار بمي دم تي رقم بوبو نيتو دي غار الحراء دي فا ويتال بوروم بي تبارك وتعالى الف النسك والعبادة والقلوة طفلا وهكذا النجباء با جبريل فكو كو تي بير قنتبه نكو اقرا جانغال شيخ الحاج مالك نينا رضي الله تعالى عنه مونيكو ما ذاك من نزومي جانغ دي بوكو تي سما مباخ خامو لوي جانغ ما انا بقاري te maa googu dafay dàq naf yu la parce que baa gi moo koy tegtale mu jiital musnad ilayhi bi indi maa naf yi ko pour ixtisaas maa ana bi xaarin du man may jàng keneen ko dul mën nag dana jàng wa maa hum bi xaarijina mina naar ça veut dire que kon ñeneen ñu dul jullit ñi duñ génn safara waaye jullit ñi moom buñ duggee safara tamit danañ fa génn wa maa hum bi xaarijina mina naar muy wa maa ana bi maa ana xaari ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Jibril mboq ko. njett ko ni ko sëñ Mansour waxee. moom la ñu may wax ñaata minutes moo ñu dese daanaka jeexal nañu sept minutes moo ñu dese. waqattahu li buluughil jahri qaa'ilahu اقرا وقال له ما ذاك من نزم من جات كو نجاتتي كو يونتبي صلى الله عليه وسلم نكو دوما جانغ خاوما لوي جانغ مو ديك باسي ياغ مو اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق يونتبي ريبيتي ن اقرا باسمك رب باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق ليغي كيسيون بي موي بوركو يونتبي باньоن لوي جانغ بوركو تاي مو نانغ وات جانغ واو لوتاخ باسكو تي تنك يونتي آه، جبريل جامونو بيمي واخ اك موم نان كان اقرا فوفو تي ايكولو ادونا لاكو لا دون واخاني موم تي خونتو با موي ايكول با mais ba mu ca dugalee madrasa rububiya mooy école yonent bi mooy iqra bismi rabbika muy rububiya ci école yàlla subhanahu wa taala ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dooro d'accord kon ñaari logique yi daa changé logique bi mu ko doon waxee iqra bu njëkk bi nga xam ne baamtu na ko ñetti yoon yonent bi nangu ko wax logique gu àdduna la bi mu bëggee mu génn ci logique boobu daf ko yóbbu ci madrasatu rububiya ne ko iqra bismi rabbika alladi xalaq kon maanaa bi xaari iqra ju gu njëkk iqra ju njëkk ji la parce que ci école adduna la te comme que ci école adduna la yonent bi mënta am professeur ci kaw adduna déedéet amul mënta am professeur ci kaw adduna léegi nag pour mu pour mu moytu loolu il faut mu yàlla yenke wal jibril mu changer école bi pour mu meuna mengo wa malaul a'la mu ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu rububiyya madrasa rububiya xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka akram fofu Jibril dafa dégager responsabilité parce que iqra ju ñëk ja mok Jibril la woon. nangul jàng parce que Jibril mënta nek professeur. iqra ju ñaarel ji. yàlla dafa dégager responsabilité jibril ñëwal bopam iqra wa rabbukal akram ma ngi ni man yàlla ma la jangulo yonent bi door wax iqra bismi rabbikal ladhi khalaq parce que professeur bi koy jàngal tay mi ngoon mu nekk iqra wa rabbukal akram léegi maam Cheikhul Xaaji Malik ne min kulli wasfin xamidin haza afala tafdil pourquoi afala tafdil googu kon yonent bi am ko waaw برسك اقرأ وربك الأكرم آه. يا الله وخك اقرأ وربك الكريم الأكرم الأكرم لك أفعل تفضيل لك جو كم كو يا موي الأكرم موتخ بمجانجلي يونتي بي داي نيك افعل تفضيل هذا افعل تفضيل يونتي بي داي نيك الاكرم والله يالا موي كي غنا تابي نيب موتاخ يونتي بي داي نيك الاسخا كي غنا تيغي تابي نيب يالا مو غنا تيد نيب موتاخ يونتي بي داي نيك كو غنا تيد نيب باسكو بروفيسور بيكو جانغال موكو جوخ انف موكو جوخ جيكو ميغا خامني مومو نيك تي موم ادبني ربي فا احسن تعذيبي موتاخ الله اكبر بوكو جبريل جانغالون كريم لاي دون يالا كو جانغال موتاخ نيك أكرم. الله اكبر اقرا وربك الاكرم كن nga gis ne foofu maam Cheikhul Xaaji Malik min kulli wasfin xamiri xaada afala tafdil afala tafdil googu mu ngi ko yóbbu ci iqra bismi rabbika alladi xalaq moo tax keneen ku dul yonente bi rek professeur bu la mënti jàngal ak loo baax baax baax munoo weesu baatu karim wallaahi karimun ku tedd ngay doon waaw karim yaa xayra man yemma mala afuura saaxatahu saayan wa fawqa mutuuni ay nuqi rusumi yaa xayra parce que xayra ci tafdil la yow mi gën ñëpp rasulillah yow mi nga xam ne kuy dox ak kuy war avion ku dugg ci bato ku toog ak ku taxaw ku tëdd ak kuy nelaw yépp yow sallallahu alayhi wa sallam yaa leen gën mhm. saa yan kiy dox mhm. wa fawqa mutunil ay nuqu rusumi ak ñi nga xam ne ñi ngi ci kaw avion yi di naaw mhm. ak ñi nekk ci biir bato yi di dox ci ci ci ci géej gi ak ñiy dox ak seen tànk ci kaw jéeri ji ak ñi war ci oto yi di dox comme ci manti doon yow sallallahu alayhi wa sallam yow yaa leen yaa leen ko kon miim googu li mu gàddu ci ay responsabilité kenn xamul lu mu toll looloo tax maam Cheikhul Xaaji wa Malick wax ne min kulli wasfin xamidin haada afala tafdil afala tafdil googu mi ngi ko jëlee ci iqra bismi rabbika allazi xalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram <laughs> macha allah macha allah xam naa maa ngi doon bëgg a ñëwaat. waaw waaw <laughs> ci ci ci ci mim gi. ak ñu nuroog moom ci yeneen mim yi nga xam ne. xam naa xam naa nga tëjee ko rek. waaw xam naa moom allah du ñàkk ñu am beneen jotaay ndax bëggoon nañoo waxtaanee. Mhm. ci mazaaya Cheikh Alhaaj Maalik radiyallahu taala anhu. Mhm. fii xasaayid yi at tawasiliya. Mhm. Euh, bëggoon nañoo waxtaan tamit euh, ci. Euh, dem ca Fala Budda. ci bi aadamin mm-hmm. bi aadamin mar wal marra wa idrisin bi aadamin wa idrisin sew sew yu rëy nga waaw yooyu yëpp bëggoon nañ ci bëggoon nañ ci waxtaan waaye waxtu waa jeex waxtu waa jeex mën naa la bàyyi nga tëjee foofu rek incha allah ñu ñu ñu am yi waaw fa tabaarakallaahu ndax tawasul yi moom buñ ci duggee boo mayee mu dugg ci wala ma bàyyi ko rek waaw moom moom xam xam xam na waxtu wa jot na waaw waxtu waxtu wa jot na kon daanaka ñaari min mo Maam Cheikh ci tënk mm-hmm, mm-hmm. tawassul daf koo mën mhm. tawassul mooy jokk ci yonent bi wala ci sa sëriñ mhm. pour mu yëgale la ci yàlla mhm. ci lu gën a gàtt oto bi nga war bi ngay ñëw kooku wasiila la moyen la pour mu mën laa jëlee sa kër indi la mais tey man mi war oto yow nga war avion maag yow temps bi ñuy diire duñ mën a bokk moo tax nitu yàlla yi dañuy rawantee ci kiy nekk seen wasiila moo tax ku la gën a gaawle wasila mhm. gën laa jegele silsila mhm. ci yonent bi koo lay gën a jege ci ci yàlla moo tax tariixa Seex Seydi Ahmad Tijaani yegg ci yàlla da cay yomb ndax silsila bi dafa jege mhm. silsila bi ba yow mii nii fi mu nekk di soo limoon sa silsila boo moytu doo passé juróom benn nit sa ligne bi la jokk ba nga yegg ci yonent bi boo moytu doo passé juróom benn nit da nga da nga naan Serigne Maodo si Serigne Maodo maam maam Habib Al Hadj Malick mu ngoog eh, eh, maam Alpha maam waa ah? maam Alpha yi ma Al Hadj Omar Fouti na maam Cheikh Mouhamadul Ghali nga dem ci yonent bi Seydina Cheikh nga dem ci yonent bi ci ci lu gàtt gàtt nga yegg ci Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolooy al wasila jokkuwaay boo xam ne moo lay jottale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee nag Maodo wasila tawassul xasida tawassuli mooy xasida yi nga xam ne waykat bi daf koy way di ci jokku ci yàlla pour yegg ci boromam tabaraka wa taala mam cheikh Hadji mali wayna ci yu bari bo ñëwee ci fala budda min chaque fois wayna ci bo démé ci bo démé ci taysir wayna ci yaa kaashifa daa i ak yenen ya allah ya hayy ya qayyum yallaahu yaa kaashifa duri wal balwa yallaahu def na ci ay xasida yu bëree bëree bëri mais technique ak fan bi nga xamante mam cheikh Cheikhul mali mi ngi koy employé ci bir xasida yoy ci la la bëgg joxe mom la la bëgg a ñu tëj bo xolé fala budda min chaque fois fu mu jexé ban maska fala budda min ila allah kurba tii wa maa li ghayrillaahi jaabira kasrati يا kaashifa daa'i wal aswaa wa adraadi fu mu jeexee rii alaa yaa rasulallahi yaa afdal al wara fahaa nahnu fi diqi shadidi tara miim la jeexe maska suuf la jeexe nga ñëwaat ci beneen subhaana man laysa man laysa yashu laa walam yanami mu jeexee suuf zalamtu nafsi wa in lam zalali rabbi wa tarxamani fal xusru multazimi mu jeexee miim naa yem ci xasida yooyu nga ñëwaat ci yeneen xasida ci tawasulam muy wax alhamdulillahi zid taysir yàlla hu nazma daraari lahu yàllaahu yàlla hu mu jeexee dama yàllaahu yaa qayyu yaa qayyumu yàllaahu yaa kaashifa duri wal balwa i yàlla hu nga wàccaat yaa rabbi habli habli ya sabran astainu bihi ala ihtimali azal axlaaqi yaa sama du lan mooy différence bi xam naa différence bi dañ koy lef dañ koy lef ndax xam naa différence moom mënagul ñëw léegi naa la bàyyi nga tàggatoo incha allah ñu yëkkati jotaay bi tabaarakallah fa tabaarakallahu ñi ngi nuyu ñëpp. Mhm. di ziyaarewaat ñëpp. Mhm. ndax xam naa maf ñaandu nañ waxtaan bi. ci lu bari waaw wallaahi wallaahi. ndax temps bi mayewu ko. moo tax ku nekk rek dañ faa coppati lu ndaw. wallaahi wallaahi pour mën a dem. incha allah te wasul yi. ay sew sew yu bari ngi ci biir. wallaahi wallaahi. Oh, bàyyi noonu incha allah bis bu jotaay amatee incha allah ñu allah la gërëm di la mm-hmm. sant di ñaan mm-hmm. yàlla tabaraka mm-hmm. sa xam-xam di la jotalee tamit nuyoo mbokk yi wax naa la ko sànq ku mel ni na nuyoo koy nuyu bu baax a baax nee na mu ngi kontaan ci yow bu baax chaque jour moom télé bi da koo fixé asfiyaay rek ñëpp ñoom ñëpp daal fa tabarakallah a baax a baax di fa tabarakallah nuyu mbolam ñi nga xamne ñu doon tewlu jotay bi mm-hmm. Mm-hmm. Euh, daara wa mam mawda ñu sëñ euh, groupe xam say farata mbokk yow yi nga xamne fatawara ka ñu sonu lañ ci ñun fa tabarakallahu mam aram ñep daal ku nekk rek ñi ngi lay jaajëfal bu baax di leen nuyu di leen mm-hmm. ziyara di rafaelu timi seen and ak ñun jotay bi di ñaan borom bi tabaaraku taala yal yalla may ñu wër ak guddu fan defal leen ko defal ñuko ñun ñep di delu di nuyu suñu wayjur suñu abdourahman saxo di nuyu timi suñu sëriñ Hadji mawda mali saw di wax ni liñ fi wax yep ci mom la jógee ñun dañoo nekkon ben euh, tarjuman rek bo xamne dañ doon mottali ay waxam fa tabarakallahu waaye ñun duñ ci leen xottu rek lañ ci ah, waaw fa tabarakallahu di nuyu ñëpp xay di ziyaar ñëpp leen wax yàlla may ñu gàmm ak jàmm wa ma tawfiqi illa billah di la yóbbante nag nuyu ak ziyaar mm-hmm. tabarakallahu ci suñu doom ju baax jooju soxna mm-hmm. soxna nogay ko ziyaar boobu sawar ah, boobu sawar boobu naa ko gàddu bokk ko bu baax pour mën ko yóbbu insha allah ñu koy ñu ngi koy joxte la nuyu masha allah di nuyu tamit suñu bàjjen maam Ali Seck ak mboolem waa kër ga yëpp jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatulah ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ احمد تيجان ساخو تبارك الله وحمنا ني تنك نني لو بري بري بري نينكو واخي نخ وقت بن وقت دا دا دا غات شي ليغا خامني موم لا mam Cheikh El Hadj malik moo ni toll xam-xam mam Cheikh Hadj malik bo ci xuusee tabaarakallaahu bala ngay dem fenn rek ma sha allah ñu ne la waxtu wa jeex na kon lolu inshallah nañ ci am yenen jotay yo xamne dana gëna yaatu inshallah taala mbokk yi yéen ñi doon ñi doon seetaan min ñu sant leen gërëm leen ci seen ànd ak ñun fa tabaarakallaahu sant Omar Fall mi nga xamne mo nekkon ci caméra yi sant tabaarakallaahu ki nga xamne moy mooy Makhtar Makhtar Ba mo nekkon ci régie bi ak mohammed Lamine Traoré waye ki nekkon ci son bi di Seydina Omar Dia ñom ñep ñu sante len gërëm len tabarakallah len jox dig daje suba ak jàmm ci benen émission ak benen invité oustaz abib Fall inshallah taala moy moy fas yéene ñëw suba kon ñu tay nak inshallah taala ñi ngi fas yéene ànd ci burdu bi serigne Ahmed Fall serigne Ahmed Fall tabarakallah di borom xam-xam moom moo ñu fas yéene firil buntu bi waxtaan ñu waye nak ki ci fas gu ngi moy sambou incha allahu taala kon loolu ñu ñu ñu bàyyi ko xel incha allahu taala kon mbokk yi ñu jox leen dig daje ci suñu diine suba ak jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. بني الإسلام على خمس خمسة أركان في صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى